asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ndokkale ci li nga xam ne ci nañu jóge di avril bi waaye Pâques bi tamit ma ci nuyu képp koo xam ne suñu mbokku chrétien yi la jëmale ci fetu Pâques bi nga xam ne amal nañ ko ci jàmm ak salaam Sénégal nag dëkk la boo xam ne bi mu tegoo sama loxo ba léegi maa ngi ci ay pexe yoo xam ne dama koy def pour xale yi mën a matale li nga xam ne mooy am seen liggéey pour mën a liggéey sutural seen bopp dimbal seen jabar waaye taxawal li nga xam ne moom mooy seen ay projet bi ngeen génnee barki Demba Ndiaye ci coow loolu nga xam ne moo amoon ak waa jooju nga xam ne mooy monsieur massage du ma tudd turam seen massage dafa ma joxoon neuf points yoo xam ne moom la ma waxoon ne ma da nga bëgg ñu doxale ko noonu par respect à la population sénégalaise ak j'ai compris le message que les jeunes ont démontré devant tous les médias du monde et devant tous les Sénégalais que man nekkuma koo xam ne président bu dëgër bopp la déedéet waaye monsieur message moom tamit na xam ne point yi nga xam ne moom la joxe maa ngi ciy góorgóorlu maa ngi koy topp ni mu ko waxee woon na xale yi def nii lii ak lii ci loolu laa nekk di xamal ne nag ibbi nañu bunt yi dinaa génn ay milliards ay milliards ay milliards ay milliards ay milliards ay milliards yoo xam ne mu ni mel na tey nga demoon stade de l'amitié fi xale ji bëree nga sol ko xaalis ba mu remb waaw nga sol ko xaalis parce que waa France ñëw nañu waa dëkk yi nee nañ man lii la dal massa parce que dañu war a jàppale xale yi effectivement ci laa nekkoon te dinaa ci gën a nekk booy loo leen bëgg rek man maa seen ginnaaw man yéenay sama sëriñ man maay seen baay fal leen ko bëggee noonu laa koy defee nu mu yomb nu mu jafee noonu laa koy defee parce que damay bañ ëllëg ci biir ñu ne moom dañ ko waxoon lii defu ko donc léegi li nga xam ne laa bëgg njëkk def kon première priorité mooy fépp foo xam ne mag dafa nekk ñu génne ko dugal fa xale wala ñu teg fa xale ci wetam en attendant muy mokkal loolu daal di dem jigéen ñi nga xam ne seen xel màccul bu baax pour mun a egg université te ñu xamee leen ci njaay ak jënd ak salon de coiffure pédicure manucure pose xef ak yi nga xam ne mooy fudan ak tatouage yooyu yëpp dinañu fexe ba daal di koy moderniser dugal leen ci benn secteur boo xam ne day nekk domaine de la beauté. et de l'hygiène et de la galanterie pour les femmes sénégalaises dinañu jéem a fexe ba buy bi ak bisaab yi ak li nga xam ne moom mooy ñam yi ñu mën a transformer def ko ay jus dinañ leen defal ay tool yoo xam ne dañu koy jënd ci baykat yi ñu arrêté boisson yi nga xam ne day génn ci yeneen dëkk di ñëw fii ngeen commencé xooj seen bisaab bu yëpp dinañ ci financé dina financer ay jigéen pour ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw jëm ci li nga xam ne moom mooy liggéey bu am solo ay cuub maa ngi waxtaan ak président Mali bi na ko na jéem a yombal li nga xam ne moom mooy basin yi fara fara ak cuub ak rombaleen jëm dëwan ak takk mi melax yooyu yëpp incha allah dinañ ci ut jàttale pour xale yi mën a jot ci cuub bi di ko jaay kenn ku nekk yaa xool ci fi nga xam ne moom nga mën a doxale ñu jàppale ci li nga xam ne moom nga mën a doxalee waaye may xamal ne xale yi saa la mën na mel rek mu ngeen ma woo saa la bëggee wax ak mun ngeen ma woo mun ngeen bañ a jaar ci benn waay mun ngeen bañ a jaar ci monsieur massage mun ngeen mën a jaar mu ngeen bañ a jaar ci kenn koo xam ne dafa taxaw pour jéem ma yàqal fi may daanale mooy di leen gërëm di sant di xam ne ne ñun ak yéen ay xale nañu. te xale bu fekkee ne dafa am bëgg nga bëgg koo naxantaan da nga koy jox li nga xam ne moom lay laaj sa doom bu jooyee nan la papa bon bon bon bon boo ko amee jox ko ko waaye gis ngeen man man temps yi ni ma nekkee nelawtuma guddi nelawtuma bëccëg <laughs> maa ngi leen di jéem a xamal ne yéen ak ñun ay morom nañu dinaa leen jox liggéey di ngeen liggéey enseignants yi dinañ ko yokku école yi dinañ ko defaraat famille dinañ leen jàppale bu baax su ko defee kenn ku nekk mën a gis sa bopp ci li nga xam ne moom laa bëgg ci réew mu Sénégal léegi nag toj yi yooyu nga xam ne da ngeen ko tojoon yëpp yëpp yëpp ni ma ko waxoon dinaa ko fay na rees ak jàmm parce que yooyu yëpp xam naa ne monsieur massage moo leen ci dugal te moom monsieur massage ci boppam xam na ne lii ma génn ci xaalis mënu ci mënu mënu ko teggi milliards yi nga xam ne moom laa leen di jox du ma ko yëkkati di ko jox waaye dinaa leen indil ay liggéey yu concret professeur arab yi tamit la même chose dinaa leen jàngal jox leen dinaa leen jox xaalis pour ñu mën a ibbi ay école privée yoo xam ne arab lañ fay jàng ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla yonent bi seen xel neexul te ay góor nañ leen jox ay métiers yoo xam ne ñoom dinañ ko mën a def te ànd ci fulla ak fayda loolu par rapport ak li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne monsieur Massage moom la ma tegaloon te respecté naa li nga xam ne moom la waxoon ci ay poñ tegg naa couvre-feu bi utal naa xale yi liggéey li des kay mooy Moussa Massage ci boppam mu confirmé ne ko man li ma waxoon maa ci tànk mu reconnaître ne kon na teg li nga xam ne mooy résistance radicale bi te bés que ne tey sama numéro téléphone laa bëgg jox la jeunesse sénégalaise képp koo xam ne am nga loola métti amul mairie wala ministre boo xam ne fal naa ko seen koñ liggéeyul nag ma woo directement jël leen bi ngeen woote ci te ngeen xam na ne maay décroché amul intermédiaire pare naa pour répondre 14 millions sénégalais jël leen numéro bi 77 640 47 boo leen ko defee après li des ngeen woote problème ma eggali ko parce que damay bañ mu sa message woo ma di ma saaga. mbégte bu yaatu di ànd ak yéen di nuyu tamit sama benn soppe bu mag bu ñaan naan Alaaji Omar Bayal Sow nekk foofu ci Louga di ko ñaanal jàmm yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram kooku di sama soppe boobu di Alaaji Malick Omar Bayal Sow nekk ci Louga yàlla ko yàlla defal jàmm di wëlëre Baaba Maal di xaritu Baaba Maal moom tamit ñu koy ñaanal kendalu jàmm joyeux anniversaire à bébé Thiaba doomu Babacar depuis Wakam photo baa noonu de la part de Lébou Ngor qui lui souhaite euh, Sarr et Cheikh Gueye depuis Yaraax voir photo de la part de sa maman Fatou Thiaw Sarr qui lui souhaite longue vie santé beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à Seynabou Boy doomu Marème Boy ak Modou Boy photo baa ngi noonu euh, de la part de As Niass qui te souhaite tout le bonheur joyeux anniversaire à Faye euh, Sanokho porte-parole euh, sëriñ bu mag bi nekk foofu nga xam ne nag moom mooy fële ca Touba Sanokho photo mi ngi noonu di ko souhaiter longue vie santé moom mi nga xam ne moom mooy Faye Sanokho porte invité yaayu cheikh yi euh, depuis Paris 1 photo ngi noonu de la part de Maty Samb TFM mu ngi koy souhaité euh, happy birthday to you di ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom Fatoumata Sidibé di doomu ndeyu ki nga xam Samb depuis temps xale ba nekk mag ñoo bokkoon classe di maccandoo crêpe di euh, àndandoo di dem di duggi marché di toggantu di foo di ree di tëbaga dal ñoom ñëpp ñoo ko bokkandoo moom Fatoumata Sidibé waxtu bi wax yéen nag ma ca Paris yaayu cheikh yi yal ko yàlla defal jàmm de part de kër ga juux waaye nag yàlla baax na yal na ko yàlla defal jàmm moom Fatimata Sidibé di nuyu Seydina Omar Bousso borom tawféex moom tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram en face kër sëñ na ko yàlla defal jàmm Seydina Omar Bousso yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram soxna Baali Muntaxa moom tamit ñu ngi koy ñaanal jàmm yal na ko jàmm sonal may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram may ko jàmm mu yàgg fi loolu te wër soxna Baali Muntaxa yal na sa jàmm yàgg suñu euh, yaay ju baax jooju nga xam ne wax dëgg yàlla ànd ak dal mën teeru nin mën gan mën teranga te boolewul dara wax yal na sa jàmm yàgg yal na la yàlla may fan bu da ak wér soxna Baali Muntaxa yal na sa jàmm yàgg wax ju teeja jëf ju teeja maanu ga soxna Baali Muntaxa yal na sa jàmm yàgg sama xarita <laughs> waaw sama xarit la <laughs> walay walay walay sama xarit la yàlla ko yàlla defal jàmm euh, incha allah xam naa tubaa sax këram laay wooree <laughs> am yàlla xam nga moom soxna Ba dafa baax ku dem ku dem këram woor am wax dëgg yàlla xëy na mën na laa tee weer waay waay ku ko dégg na ko jottale waaye sama sopp bi mbokk yi. Abdoulaye lu leer la wax nee na li Macky Sall diggee nii wax ko ba pare moom yàgg naa jaar ci yoon boobu. waaye nag lu nit mu deful ci juróom-ñetti at est-ce mun nga koo def ci ñetti at yi la dese ñu dem seeti ki nga xam ne moom mooy Ablaye Wade lan lay tontu jëfu Macky Sall ba góor gi. sànni